asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen nuyu fii ci jumaay Touba tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor gi 1442 dëppoo ak 11 mai 2021 ni ñu ko baaxoo def daayira Muxaddamatul ma ci liggéey bi mu yore ci jumaay Touba te nekkal fi mboolem taalib yëpp ak jullit yëpp tax waxtu wu nekk liggéey moom du ko yaatal ci mbooloo yu wuute yi jëm ci lépp loo xam ne lu am solo la ñu ngi taxaw taxawaay yu rafet ñu ngi ñaana Sëriñ Tuubaa Seex Mamadu Muntaxa yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu wéral ko ba mu yéene ci liggéey bi yàlla suñu borom kàttanal ko ba man ko di ñaan yàlla suñu borom yokk wér gi ci réew mi ak ci mboolem fu àdduna bi nekk jàngoro yàlla suñu borom saafara ko fa tey jii nag ñu dalal sunu mbokki docteur yi nga xam ne ñoo ñoom yàgg nañoo ànd léggéey te lépp rafet muy di district bu Touba ñu ngi nuyu docteur Ndeye Maguette di ko toog ci loxol docteur Fall ak docteur Diouf ak docteur Ndiaye ñi nga xam ne ñoo fi ñëw teewal fi district bi yëpp ñu ngi leen di sant ci li weesu lépp ci doxin wu rafet bi ngeen am ak jumaa ji am kook daayira xen ma muy jëf joo xam ne kenn ku nekk ci yéen waxtu nekk yéen a ngi wane ne liggéey bi soo liggéey la di ko waxee di ko jëfee ba tax na lépp luñ mës a nekk rek ànd nañ ko yéen ci consultation gratuite yi ñuy def ngeen di ci participation yu am solo. muy lépp lu arrivé ba benn malaat ci barab bi bu yegsee ci yéen taxawaay yu rafet yi ci taxaw xam jumaa ji sembul li mu sembule ci dëkk bi tax na ngeen koy bàyyi xel di ci wane seen liggéey bu rafet ak seen jàpp bu rafet ba ci lii xew ci jamono yàlla na ko fi yàlla suñu borom jógee mu fi jógee tamit ànd gi ko ànd tax na yombal na lu baree bari kon yàlla suñu borom mi dogal loolu ba ci docteur yi seen biir ci benn xalaat bu ñu amoon ci biir jumaa ji benn lu mel ni infirmier boo xam ne barab bu toll nii ku ko am di fa dajale nit ñu toll nii war nga am koo xam ne boo fa dara arrivé nga mën koo jël fenn yóbbu ko ñu defal ko problème soobee mën ko yóbbu ci fajkat ya loolee yéen ñii am ngeen ci taxawaay yu rafet rafet ci ndigalul seen i kilifa muy médecin chef bi ak médecin médecin régional bi ñoom ñëpp ak docteur Dieng ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant waaye ji jotal sant yii nag ji ñu jotal yéen nii bu ñu leen santee danañ ci mën a dugal mbooleem koo xam ne jàppale daayira Moukhaddamatoul Khidma ci aji privé bi sax yéen mën ngeen ñoo jotal cant googee ndax taxawaay bi ngeen am ci daayira bi kon ngeen jotal ñu cant yooyu ci mm, mboolem ko aju ci faj mi wala ci pharmacie yi wala ci lu mën di doon rek di doxale ko jëm ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di jotale ay sant ak i ngërëm di rafetlu seen teewaay bi ngeen teew ci ndogalu tey ak waxtaan wi fekk fii waxtaan wi ñu jox leen micro bi wax ñu ni ngeen jàng waxtaan wi ak organisation ak yi ci daayira Moukhaddamatoul Khidma bismillahi rahmaan bismillahi rahmaani rabbi saxri sadri wa yassir li amri waxlul ko min lisaani yafqahu xawli jërëjëfati sëriñ Touba sëñ Mountakha mbakk yàlla na fi yàgg te wér euh, asalaamaaleykum euh, di rafetlu nag euh, jotaay bi occasion bi ngeen ma jox muy daayreetu Muxaddamatul Xidma yéen moom foo dañ leen di ñaanal sax yéenay ñaanal seen bopp ndax li ngeen di def ci dëkk bi gis nañ ko liggéey bi rafet na kon nag ñun ñu fi teewal district sanitaire bu Touba bu docteur Ndeye Maguette Diop. ak médecin chef de région bu docteur Mamadou Dieng man ak docteur Ndiaye ñoo fi ànd moom mooy nekk médecin chef bu Sand Sand Kër Ñang ma ànd akook docteur euh, Modou faatu juuf bu nekk fii médecin chef bu centre de santé 28 Serigne Saliou man mii nekk docteur Amadou Fall nekk médecin chef centre de santé Daaru Tanzil ànd ak tam docteur Ñima ci jigéen ñi la nekk moom it ñoo ànd ak délégation bi nga xam ne ñoo fi représenté district bi di di leen sant bu baax di leen ñaanal ak ñëpp ñu ñu fi bokkal ndogu tey bi muy suñu mbokku enseignants yi ak ñëpp sëriñ si yëpp ñi fi nekk ñëpp duma ma su ma limee damay juum euh, ñi ngi leen di ziare gis nañu liggéey bu rafet bi ak waxtaan bi déjà parce que waxtaan bi nga xam ne ci alxuraan nga xam ne waxu suñu borom la nga xam sëñ Tuubaa da fonk kon ku ko fonk jàppan nga ne yaa ngi ci yoon bi waa li muy lim fi lim fi wax yëpp mënuma ko fi tekki waaye daal liñ ci jàpp mooy ndimbal dimbale te yàlla tax dafa am solo foofu lañ toll nag di ñaan nag vraiment 11 euh, mais bii ñu fekkee muy ñaar fukki fan ak juróom juróom-ñett euh, lépp luñ fi jaamu mun ne mu borom suñu borom fulal ñu ko defal ñu ko ay yiw ci barkeb Serigne Touba bi ñu yaakaar nga moom lañ yaakaar fii yaakaar ko fañ jëm. ndax liggéey bi ngeen def nii yéen nag li ma doon wax sànq sama mbokki docteur ma ne ñii nag dañuy këpp suñu yelwaan parce que ñoom ñun bu ñu amee téeméer ñoom am nañu ay junni junni junni parce que lii ku koy euh, saso euh, koor gi yëpp ah yéen daa mel ni ñun ñun boomatul bu ñuy dem duñu fa fekk dara waaye nag xam naa ne doole ñu fàtte kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci organisation bu rafet bi ak xale yi nga xam ne ku leen gis xam ne tàggat nañ leen ci daara yar bi yiw bi ak dayo bi wax dëgg yàlla loolu moom moom moom moom tubaarkàll nii rek la ko sëñ Tuubaa bëggee murit moom ndigal ndigal nag lu ciy jiitu mooy yaru bi ak teewlu gi murit mooy mooy li may wax rek boo leen gisee dang leen di sopp murit bu ñu soppul seetaatal sa bopp kon nag daayira bii daal waxoon ñu ko sëñ Laat Bousso ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal xam naa gisuleen ñu waaye saa su ne yéenay suñ tiitar Euh, damaa mënewul wax nag waaye xam naa ne damay bañ a guddal ndax guddi na te xam naa ne ñi sant Mbeng ak ñi sant ñang xam naa ne yàkkamti nañu dem kon maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di di di rafetlu vraiment jotaay bi di ñaan ñu koy fekk ay ati at te di wax tam di leen fàttali euh, consultation yooyu ñu doon dimbalee suñu mag ñi nga xam ne dañuy nekk fii ci barab bi te Sëñ Tuubaa rek tax loolu moom am na solo maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf. jërëjëf docteur Fall jërëjëf kàddu yi rafet na foofu nga daanal rek consultation bi. fi tolluwaay jamono moo tax ñu aj ko ci koor gi waaye incha allah danañ fi ñëw ci kanam ci diir bu gàtt buñ ci defee incha allah nañ ko ko ànd tolluwaay jamono taxoon ñu ajoon ko tuuti rek ngir dajale dajale nit ñi ak niñ ko daa defee moo taxoon waaye incha allah nañ ñaan yii rek jóge fi rek incha allah léegi tey fan fan yi dañ ko jàppaat ñu ngi leen di sant bu baax nag di sant docteur Ndeye Maguette ndax bi mu fi ñëwee ba tey damaa jël ñun ñu dem fa dara soxla dara waaye moom moo toog ba yàgg dikk xoolaat ni war ngeen def la ba ci koor gi rek ñëwal na boppam laaj bi koor gi jub si ci tolluwaay yeeg waajtaay yeeg lépp kon loolu lépp nag bu ko dee bàyyi xel xam jumaa ji jumaa la fi doo dama wax ne fii ku fi ñëw du kisoo ñu ngi fi fekk yi fi nekk barab moo tooy noonu ba ku fi def dara fu nekk war a suuraale barab bi kon ñu ngi koy baax di ko gërëm ci ndog yii nga xam ne yàlla dogal na Sëñ Saaliw ñu ci joxoon ndigal ñu def ko 2006 ak 2007 ñaari at ci booba ñaar ay bis gu ñaar yoon lañ lañ lañ jukkoon tàmbali ay bis ñu jàpp ñaari fan léegi ñu dem ba bis bu set lu mu néew néew ñetti junni danañ ne kon léegi suñ fisal waxoon ne da yaatal ko yéene yéene ñëpp ba tax na kenn ko ñu lay woo ngir bëgg nga bokk ci liggéey bi yéen nag ñoon dañu leen dañu dañu leen di sant waaye nag li cëpp dañ koy def sotti ñaan ndax gis nañ ni ngeen jàpp daayira Moukhaddamatoul Khidma ba lépp loo xam ne yëngu na ñoom da ngeen ñëw waaye nag fii ku fa def dara sa bopp nga ko defal barab la bu naqaree def nag yàlla suñu borom mooy dimbali ni mu nangu fay def ku yàlla dimbali rek nga def fii da nga fa mën a def sa sa sa kon nag yéen yëg nañ ni même ku jóge fii nga am ay jafe-jafe ci barab bi bu ñëwee ci yéen da ngeen koy bàyyi xel boo wootee téléphone rek danañ yëg ni ci bàyyi nañ xel ci barab bi lu jógee te loolu lépp nag xam barab bi moo tax ngeen di ko def kon ñi ngi leen di ñaanal ci barke Seexul Xadim li tax ngeen di ko def mu faggul leen lu kawe seen jot métier mi ngeen di métier yàlla dafa leen sutura dafa leen ci sag ba ku ngeen tiim ko nekk yàlla dafa ci ak ko may yàlla may leen ci régir ba ngeen egg fa ngeen gën ko ngeen demee ngeen sant ñu nday màggat ak médecin chef régional Mamadou Dieng ñëpp di sant nag koo xam ne tamit suñu partenaire boo xam ne jàmbaar la muy Mahmadou Lo mi nekk PRA moom it ku la dossiers yëpp diggante ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu